président li mu bëgg mooy bu amee deuxième mandat ñu am kiiraayu wérgu yaram cent pour cent ndaxte feebar day dabe te am na feebar yoo xam ni daanaka nit ñi dañuy jaay seen i kër pour faju moom loolu la ñu bañal ñu ànd ak moom jàppale ko ñu fal ko premier tour au soir du vingt 24 février tey moom mu gàddu bépp jigéen bu ñuy césarienne ci Sénégal moom moo koy fay mag ñi nga xam ni duñu fonctionnaire fonctionnaire yi néew nañu 60 ans jëm kaw tey moom mu gàddu faju mag ñooñu xale yi nga xam ni ba ngay judd ba juróomi at moom moo ko gàddu bu ñuy wax tabax dañuy def fondation fondation kër fondation dëkk fondation réew mooy jigéen ñi ñun jigéen ñi loolu muy suñu jàmm dañu bëgg mu continuer ba deuxième mandat bi nga xam ni bépp sénégalais am nga kiiraayu sante maanaam soo feebaree di nga dem hôpital de doo génne sa xaalis ndax sa mutuelle moo lay fayal li état fayal li mu jeex donc fofu la ñu bëgg jëm éggaguñ fa té bëgguñu fal n'importe qui mu ñëw bouleverser politique bi def lo xamni du ñu arranger du arranger jigen ñu du arranger xalé du arranger famille